toglen Doudou. Wow grand coronavirus un buy pour nous en il faut que nous dégo pour nous dimbalé suñu médecin dimbali tamit suñu Nous ñu gaaw xex ko. té li pour ko ku nekk. consigne yu la ñun virus bi du law. ngir yalla toglen sen keur toglen s'il vous plaît. toog leen seen kër. ay waaye toog leen seen kër. toog leen seen kër. toog leen seen kër. restez chez vous. stay home. rimasto a casa. toog leen seen kër. Msonekane msonekazi. toog leen seen kër. restez chez vous. toog leen seen kër. non da ngeen di toog sax. toog leen seen kër. restez chez vous. toog leen seen kër. toog leen seen kër yi please. toog leen seen kër. restez chez vous. c'est très important. Restez chez vous, Ked Degalemon. Toglen Senker. Toglen Senker. Restons chez nous, Toglen Tog Senker. S'il vous plaît, Toglen Senker. Toglen Senker. Senker. Restez chez vous, Toglen Senker. Le à Tok Toglen Senker. Toglen Senker. Restez chez vous. toglen leen seen i kër. yàggatul toog seen kër yi. toog seen kër. toog seen kër. please guy toglen toog leen seen kër. di leen ñaan rek ngeen toog yi ñëpp seen kër si kàttanu yàlla lépp dina baax ah. ciao tutti e state tutti a casa per favore andrà tutto bene. on reste à la maison. toglen leen seen kër. toglen leen seen kër. toglen leen seen kër. toog seen kër. respectez les règles de confinement et restez chez vous.